bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk caatu Yarax fële ci stadium Iba Mar Diop maa ngi lay nuyu. avant tout on wax onze billahi mina seytaan rajim ñu sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di ñaanal xalif général kuli murid di sëñ Mountakha mu yàgg fi lool am wér am gudd fan. ak bépp kilifa diine bu nekk ci réew mi bàyyiwuñu kenn muy Touba Tivaouane Kaolack Ndiassane bàyyiwuñu kenn ñu ngi sant ñëpp di leen ñaan yàlla ñu yàgg fi lool. nga am combat boo xamante ni combat bu doy waar la ndax xale bi ngay bëreel tolluwaayam màggam ci wàllu làmb est-ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel. non man aw leen loo xam ne dama ciy bàyyi xel ci côté sama diggante ak Yara parce que fi ma jógee jaar naa daal fu metti ci làmb waaw tëbu ma rek bëre grand combat dama tarbiwu mu metti lool ma xuus ba agsi dafa nekk loo xam ne mënu woon ñàkk nag moo tax ñu jël ko parce que tamit adversaire la bu ñu respecté bu ñu bëgg te yaakaar naa le 10 yàggatul bu ñëwee incha allah am ndam lu seddu waaw. Caatu Yaraax nee na sama adversaire dama ko xam waaye moom xamuma bis ba la may xam. non loolu man miis naa ko ci gars yi ko ci dajal da lay profité xam naa la di la jéem a ceeñ ci li ma ko wax rek sama yoon Caatu Yaraax mënu ko yàq man dama am plan de carrière dama am plan de carrière mënul yàq sama yoon ci côté bu ne nag waaw. combat boobu ngay bëri Caatu Yaraax naka ngay préparé combat boobu. waaw comme ni ma doon préparé yeneen combat yi ni ma ko doon àndee ànd koog sama papa ak staff bi. ay Zos sama gaa yëpp ñoom Omar Fallou mënuma limb parce que su ma limbee damay juum dafa bëri stafu Zal Baol dafa bëri par rapport ak ñi ngay gis rek am na ñoo xam ne tey dañu nekk ci àll bi di ma jàppale ci ne di profité nag di nuyu ay kilifa diine yoo xam ne dañuy sonn ci sama bis mooy waa Daar Rahman di sëñ Modou abi Mbacké tey ak bépp kilifa bu nekk ci ci réew mi rek tey ñu may jàppale dafa bëri ay kilifa ak tey shérif yi nga xam ne dañ may ñaanal ti yàlla rek tax di ma ñaanal ba pare di bokk man seen teraanga muy shérif Bahayda ak Cheikh Talla Bouya Cheikh Sidaati euh, bàyyi bëri na daal ñoo xam ne tey dañ ciy jàpp di profité di nuyu suñu am sa bu baax a baax a baax waaw. mbaa du combat bi ci ñaan nga ko teg. non ñun ñaan moom dafa bokk ci gàllaaju mbër mais Thiatou Yorakh man gëm naa ne man ak moom dañu daje ma jaarale ko fi ma doon jaarale gars yi bokkuñu sax. seetaan nga ay combat Thiatou Yorakh. non xam naa ko comme ni may xamee yeneen gars yi waaw ni may waxee rek seetaan naa ko xam naa ko su ma ko xamukoon ko jël dafa def ay përëfam moo tax ma ñëw jël ko bu fi defukoon dara du ko jël xam naa ko waaw xam naa ko ñëwal leneen. xam nga caatu yaraax bu baax caat bawal nañu waxante dëgg. waaw caat moom gëm naa ne xam naa ko mais yooyu yëpp aajuwul tey li ma war a bëri moom maa ngi koy liggéey bis bi yàggatul pour ñu ñëw def li ñuy def jëlëf dem suñu yoon. combat bi dina am xeex. combat bi lépp lay am lépp lépp lay am day am xeex day am bëre waaw lépp lay am. lan ngay wax say supporters ak amateurs yi. waaw di wax amateurs yi ak supporters yi ñu góorlu ñëw teel a dagg billet ñëw stade ñu daan jóge fi xoole leneen waaw loolu rek moo fi ne daan ko dem xool leneen. kon de loolu rek nga gis ci combat boobu dem daan ko xooli leneen. non man du ma dugg ci risque yi tey ku ñaan yàlla dem bëre jeeg roi des booy xalaat sa diggante ak caatu yaraax risque yi boo yeboo nga dem toog seen kër man du ma ragal góor man du ma genre boobu sax. ban appel ngay lancer. waa li may lancé appel moom damay woo autorités yi nga xam tey ñoo nekk ci rëbës bi nekk ci eh, Dakar Plateau bi di ma jàppale tey maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn ku mel ni suñu papa Diop si euh, Pape Diouf Seydou Camara tey Cheikh Abdou Khader Gaye bàyyiwuma kenn di woo Paul Douanier Paul Douanier Paul Douanier maa ngi koy woo baax baaxa baax a baax pour mu ñëw jàpp ci combat di woo euh, Papis Niang di woo Ousseynou Ndour marché Tilène maître Pape Sène maa ngi koy woo di woo maanaam kilifa yi ci jàpp ñëpp laa la wax di woo buri bu Serigne Saliou di woo am di sàmm sama gars yi Fallou Fallou amical borom Kaolack maa ngi koy woo bu baax a ci bokk combat bi. yaakaar naa am na loo ko bëgg laaj. waaw am na lu ma ko bëgg a laaj Baye boo xoolee ki nga xam ne mooy caatu yaraax boo xoolee année bi ren bokk na si mbër yi gën a gàtt seconde la daan ne serpent noir ne zaal man du ma serpent man bëri naa combat bu gaaw bëri naa combat bu yéex man lool garaawul bu bëggee ñu bëri combat bi gën a gaaw ci song bi na ñëw song ma sànni ko mu jeex. kon combat boobu amateurs yi mën nañ ci xaar xeex mën nañ ci xaar bëri combat bu gaaw lay doon. bu fekkee ne li nekk ci man moo nekk ci moom amateurs yi dañu ubbi seen bët xool waaw mais man du ma serpent noir da nga ne Zal Baol ne serpent noir xoolal sama plan de carrière nga xool ñi ma bëreel nga xool ñu caat yaraax bëreel nga siisee nga xool waaw loolu maa la ko wax. kon rendez-vous bi kañ. rendez-vous sam samedi la mais da may may ma woote parce que dafa am kilifa yoo xam ne dañ may jàppale ci côté mais maa ciy jiital sama papa Mbaye pour nga xam ne man ak moom du caageen euh, arène moo ñu boole depuis bi may nekk booy lan laa nekk ak moom ba tey jii. non mbay li mu def démb loolu moom dama koy féliciter parce que tey bi mu ko defee toog na ñaanal ma ndam mais mu nekk nit bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla nekk ay ndami ndami ndami ci moom ba ci wàllu sama gaay ñoom njool bàyyiwuma gaay yi nees tout sama rakk caatu rëbës démb dafa demoon doon wuti ñàkk ma koy gëmloo ne ah lamb noonu la booy wuti mënu am chaque jour mais li nga ñàkk ne yàlla nekk li gën ci yow moom caatu waa sama rakk la ti déggal na ma waaw mais mais woote bi moom damay profité di woo waa Rëbës bàyyiwuma kenn laa la wax ah waaw sama rakk Tigir tamit euh, moom ci équipe bi la nekk ñoo bokk bëri na démb ñàkk yàlla na ko yàlla suñu borom euh, continuer neexal palmarèsam waa di di woo Dakar Plateau laa la wax bàyyiwuma di woo waa Rëbës mag ndaw surtout jeunes yi waa Médina sama gaay waa Bawal ak yaay ak yaay sama dëkk maa leen di woo bu baax a baax a baax ci combat bi di po di woo groupe WhatsApp Zal Bawol dañ may jàppale 100 pour cent Zalbool lu ma soxla instant dañ koy yëkkati di ma ko jox bu baax a ma waaw sama grand Omar Ndiaye tamit vraiment maa ngi koy woo baax di profité nag di woo waa Touba waa Daaru Rahman bàyyiwuma kenn sama yaay mère Roxi Seck maa ngi koy sant bu baax a baax di sant jigéen ñi nga xam tey suñu amee combat ñooy toog mënuñu tudd kii bàyyi kii ñu ngi leen di wax ñoom ñëpp laa la wax di leen sant di leen gërëm di ñaan ñu yàgg fi ba seen seen njaboot yu barkeel waaw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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk